ngir gën mëna mën jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bëss li nga xamni mo di cloche bi ngir mëna a jot yooyu les notification

Caaroy man dama nekk doomu Caaroy dëkk Caaroy juddoo fii si Biafra donc yàlla dogal euh, ki ñu doon sargal tey muy sëñ Sepinda ma nekkoon si ay loxoom mu may tàggat may entraîné muy def si man xam-xamu karaté bi ma ba takk sama ceinture noire ak kii nga xam ne moo taxaw sama yoon muy seen seen dumbe faal ma bi ma demee ba takk sama ceinture noire nag si laa lañ si lañ ma jox ndigal ma ubbi club li ma jot a xam liñ ma jot a ma ñëw di ko tasaare ci xale yi nga xam ñoo nekk caaro waaw loolu mooy montré que ni ñoom li doon jàngal ba tax ñu ubbi saal donc naxuñu ñu parce que li ñu doon jàngal lañ jël ñun transmettre ko mu rafet wala mu taaru rek si sente Binda la jógee wala sente Ndoumbé Fall ñoo ko jàngal ba ñu mën ko jox xale yi waaw waaw incha allah que si première édition la ñu jóge bi ñu jógee ci première édition dañu ne parents d'élèves bi dañ koy def benn fête ñun ak yéen wan leen ni li ngeen ñu joxoon seen ay doom kaay leen ngeen li ngeen ñu joxoon ñu def première édition mu jàll ñu ñëwaat deuxième édition mu jàll ñu ñëwaat troisième édition mu jàll léegi suñu quatrième édition nag ñu ne kon suñu maître ak ñi ñu doon tàggat ñooñu daal dinañ leen woo rendre leen hommage ndax ñoom ñoo tax bis bi dem ba tollu fii parce que bu ñu jàngalul woon xam-xam tey duñu mën a def bay rendre hommage suñu maître bari jafe-jafe yi moom kenn mënu la wax nu mu toll waaw donc lu si mel ne xale yi jàppale bi ñu leen war a jàppale parfois ñu jox la ay xale yoo xamante ni parents d'élèves yi pour ñu fay day nekk problème xale yi dañuy am équipement comme xale bi ni muy jàngee di am blouse di am léppam noonu la parents d'élèves bi war a moom tamit joxe gëdd sport bi parce que sport étude la ñuy wax donc nit sport nit moo koy def jàng nit moo koy def te sport dafay tàggat nit ba nga xam ne sa côté jàng di nga si mën a réussir kon jafe-jafe yi ñu am mooy ñu jàppale xale yi ci côté matériel yi ñuy war a soxla ak seen côté paiement ak yombale leen ñu mën a ñëw entraînement bu ko defee ñun ñu def si ñëw xam-xam donc gis ngeen léegi prestation a de banlieue ñi koy expliqué parce que nit boo amul wér-gu-yaram mënoo def dara si sa àdduna tey boo amul wér-gu-yaram mënoo jug pour dem jàng ji boo amul wér-gu-yaram sa xel mënul ubbeeku te karaté dafay defar nit def si moom ay valeur jox la ay jikko tàggat sa xel ba boo demee école buñ la xoolee yow di dinañ la ràññee ci xale yi loolu mooy njëriñu. donc loolu li muy montré rek mooy nit booy def lu baax bu ci xaar nit ñi fay la danga ciy xaar fay suñu borom. li ma ko doon sargal ak yéene bi ma ci amoon yàlla xam na ne surprise bi xale yi defal ma man yëguma ko sax donc loolu mooy montré nit kuy def lu baax rek da am lu baax parce que sargal bi ma ko doon sargal donc dafa ëlbatigoo xale yi ñoom tamit sargalaat ma ma ci kontaan bu baax di lancer message mais lancer mooy képp koo xamante ni am nga sa kilifa bul ko xeeb nga jàpp ko nga di ko toppatoo parce que man xamuma sargal nit bu mu génnee àdduna man xamuma loolu man dama xam sargal nit ci bi muy dund man loolu laa xam loolu moo amoon yéene ñu boole ko ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar Abonnez-vous à la chaîne YouTube bu Info TV Vous daal des li cloche bi les notifications.